amul Diop Kokki sa réew mi teel naa bari wax ju sew de waaw ak coow lu bari waaw buur dañ daan wax de mën a yow di werante waaye tey duma werante hmm. ndax gouvernement bii ak état bu bees bi séntu naa ci fan yi coow lu bari gis naa ko nag hmm. te coow li maanaam ñaar ñi nga xam ne si ne ñoo séq réew mi muy jomaay hmm. ak sonko nañu góor góorgóorluwaat ci gën a dëgëral seen taxawaay. muñ ko deful. alhamdulilah lu nekk mën naa xew waaye coow damaa gis coow loo xam ne coow li dafa dafa dafa dafa doy waat. Hmm. waaw dafa doon coow loo xam ne te buur lu ma la mas a wax ci àdduna. teg naa ci sama bët bi. waaw du ma fen ku yàlla sàkk ngir bëgg ci yow duma ma ku yàlla sàkk ngir ragal la. jërëjëf mbokk internet yi bu ngi leen di nuyuwaat di leen ziar di leen ndokkeel ak fooy mën a ne dellusiwaat ak yéen ci beneen jotaay xam-xam ma Amadou Diop kokke ak i ndaam saa su ne dama ko naan ku ñuy tagg di la dàkkantal naan la sa waajur bàyyil na Cheikh Mouhamadul Moustapha al xalifatu awwal lu toll ci fukki dëkk ak ñaar bu la neexee nag bàkku di yàlla may ci xam-xam ilmu nujum wàllu seet wàllu faj waaye pomaat bi ak butéel bi ak nakke ñu ngi lakk dëkk yi waaye dañuy waxtaanee actualité Cheikh Amadou Diop kokki bu ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyu seetaan suy bi promédia ak buur géer wasalaatu wasalaam ala waltuf bina wa xawina wa kun lana wa ablana xusna islaami rabbana wa salliyan ala nabii wa sal waqti bi xaajate kullu muslimi buur maa ngi nuyu ñëpp di wax jërëjëfati sëriñ Touba. jërëjëfati sëriñ Touba. jërëjëfati sëriñ Touba jaaraama Cheikh Mahamadou Moustapha Mbacké sunu yaakaar dafay mel ne buur jamono bii de dëkk bi jaxasoo na lool Mm. coow li na bari na. coow li bari na. lool waaye lii xew. bu ñu ko xamoon ñi séq yëf yi danañ gën a sampar seen bopp. buur. Mm. coow bu xasee bay tàkk bu ko ngelaw ëffee musibaam. dégguma de. coow su xasee ba tàkk sawara bu xasee ba tàkk bu ko ngelaw ëffee musibaam. tanaan na ngeen xam ne kii nga xam ne si ne mooy kilifa réew mi tabi xam sawara la. Bassirou Diomaye waaw. te ba mu toogee ba léegi musumaa gis fu mu rendee mm-hmm. te war naa def ay sarax saraxal rawaxaan yi saraxal géej gi mm-hmm. saraxal tabihan sawara yi tabaxal sara maanaam saraxal jinn yi nga xam ne ñoo ko samp ba tax mu am li mu am mm-hmm. te loolu def ko erreur nag mi ngi am ndax coow a ngi ñëw te billaahi te coow a ngi ñëw loo xam ne si ne famille akkat ji du neex du neex gaa yi ma ne nee nga ma gisoon na ak palom waaye ba muy palu dafa am lu ma ci gis te loolu mu ngi xeeñ maanaam man man sama jëmmi bopp man man sarax bi fal jomaay man maa maa woo ay nitam ñu génn ko mhm. ci samedi ñu ko génne ci biddiwu suxaal mhm. biddiwu suxaal ci lañ ko génnee muy fukki bëy yu xonq mhm. fukki bëy yu xonq yooyee man keroog seet naa mbirum jomaay mu taxaw ci foo xam si ne da doon ñàkk nguur gi doonu ko woon gañe ba ma la ma ca gis nag mbirum biir la ma nëpp nëppal ko denc ko damaa bëgg it ñi nga xam ne si ne ñoo séq réew mi ñu amaat taxawaay ci seen bopp ndax man yéene naa leen réew mi te yéene naa leen ñu dox mm. waaye nag coow day ñëw loo xam ne buy agsi rëccu dafay fekk jëf wees mm. waaw waxantuwuma buur benn mi daafal jër lu ma fen wallaay dëgg la xam naa ko tëjee bokk naa ñi nga xam ne dañ dama naan franc sama der bii téye sama péru kurus ba asamaan set kenn musuma cee weexal sarax bu ma doon maa ngi daan génne sama bopp man dem naa ba di la tuddee sëriñu Pastef dégg nga sëriñu Pastef damaa gis mu nekk ci lu baax ki fi nekkoon not ñu noteel goo xam ne si ne yu ayus billah xëy na tàmbalee nag ban mën a critiquer kenn du critiquer waaye dañ leen wax na nañ gën a sampaat seen bopp gën a sécuriser seen bopp gën a defaraat seen taxawaay rawal mu ngi noonu révélation la boo xam ne tey dama ko ne dañu laal ci politique laal ci làmb waaw Siteu lamb ji Siteu Modou Lo rek moo ma ci da buy ma dafa ndànk rek Siteu Modou Lo moom mii ngay wax noonu. Mhm. Modou Lo bu mu jàpp de mën naa daan Siteu de ah. <laughs> keroog nga nee na Siteu lu wax ji gën a bari combat bi gën a métti. waaw combat bi moom mënut a ci moom waaye nag dafa ne xam ne nag bëree bukki ak mbaam la waxoon naa la ko ci Ama Baldé ak Modou Lo. Mhm. bu mu ko jéem de. Mhm. bu mu ko jéem barke borom Touba Modou Lo jamono bii na gën a sampaat boppam. waaw xale bi de mel na ni am na ci lu mu toog. de ah kay même boo mu ci lu mu toog Modou Lo dafa am ñoo xam si ne ñi ngi taxaw temm ngir mu daan. waaw d'accord naa ci loolu. nangu nga ma loolu. nangu naa ñi taxaw ngir ñu daan man xam naa leen. man maa tudd seeni tur ndax dañoo ñëw ci man. Hmm. tamit du ma def lu bon buur. Hmm. du ma def lu bon du ma ko wax. parcours bii na ma ko doon woon samay waajur danaa leen ko joxaat mu set wicc. te dara du xew déedéet. mu ngi noonu Cheikh Amadou Diop Koki loolu actualité la kokki ah. pomade bi nga tukkal jamono. wallaay. ana sama baa ngi nii. pomade bii. <laughs> maanaam yéen booy yu ndaw yi leen leen. pomade bii doy maanaam buur li ma gën a sant yàlla pomade bi ci la bokk. Mm-hmm. xam nga lu tax. Mm-hmm. pomade dama naa gis ñoo xam ne si ne daawuñu am deux minutes ci seen kaw soxna. waaw nee na ma guddi gi lu mu gàtt gàtt dana def ñaar. te ñaar yoo xam ne day ànd ak bànneex. xoolal pommade bi laala nii rek say si di jóg ak koo mën a doon bu la neexee nga sëy ba la yor mais kon pommade bi ko yor dina yàgg ceew ah, na ah kay loolu dama damaa bëgg ku koy yor mu jële la xam nga lii vingt cinq mille francs dara de waaw du dara de du garab gooy naan dama a neex ci yow yow kokki mooy say garab dafa buur dafa xewle buur buur wàllum garab gii yi may joxe man mhm. du ma ci teg ab coono doo ko maanaam doo ko war a jot jotoo ko du ma la ci teg loo xam si ne mënta ndax wutewuma ko xaalis Mm-hmm. xam-xam bii sama bàyyi keroog ba mu ñëwee Cheikh mu Moussa Mbacke dafa bind ab kaamil indaale fekk ko njaareem mm-hmm. bàyyi Cheikh Fall téere di jëru na moom la fekk mu jëru si Moussa ab kaamil la bind kaamil alxuraan indi Cheikh Moussa man sama bàyyi bi bi fi bi bi sëñ mag bi di jóge boo fekk na mu ne ci ci daara alxuraan di jàng mm-hmm. Cheikh Moustapha nekk njaareem mu fekk ko fa ñëw yëkkati kaamil alxuraan jox ko daana ko damaa bëgg damaa bëgg liggéey yàlla sëñ Mourou Moussa ne ko ci nga man ne amee teraanga yi adduna ci àlaxira sama baay daan toog mu jàgg mënu ma xamuñu xamuñu adduna ji waaye ju alaaxira ju xamuñu alaaxira ji waaye ju adduna ji am naa ko ba doyal buur ñun xoolal demuñu yettuñu goruñu pérécourse bii ci lañ judd yaru ci sama taaw papa mi ngi ci quatre-vingt-cinq ans te ci pérécourse lañ ko ngéntee lii nii di xam-xam du ci wax ni du ma mënut lu ma dem ba di ko ñépp ndir rek na nga xam ne loola lu wér cëng la mm-hmm. lu benn mi dafa muti dindi fenuma xam-xam laa yor dama koo tërbiyewu mhm. dem jàngi ko dox dox ci réew sous-région bi réew boo réew junne teg naa fa sama tànk mhm. réew Afrique yi na xam ne benn réew laa fa musa dem muy Mauritanie Mauritanie bu dee xam-xam bu dee nàkk yi ma wax nii fi mu toll nii gis nga nakk yi tey jii fi mu toll nii maanaam yi na gis nga nàkk ah, yi vocal bi mu envoyé keroog damay bañ a ndax waa wax turam ci vocal ñëpp dafa ne Cheikh Amadou Diop Kokki man de vraiment lii yéem na ma. waaw ndax bi ma gëjee dem douche yàgg na. waaw waaye lii bi ma ko naanee. waaw yu ñuul. yu ñuul ku ko doon génn booba fekk na ngelaw yu bon yi ñoo nekk ci yaramam. Mm. te ngelaw yoo gis nga ñett traitement yi mënoo ko jël mukk mukk mukk desewaat jàngoro. Mm-hmm. tamit nag bu damaa damaa yéene ñëpp jariñu si moo moo moo biteel bii ñooyam non nañ taxaw ci nakk yi quoi. waaw xam nga nit ñi. lu leen di jariñ dina siiw cim rek waaw nit ñoo mel noonu barke Serigne Touba dama naan Serigne si xam nga jarul dara a xam nga mooy defal rek déedéet maanaam xoolal ana ana les hu maa man man dégg rek xëy na du moom hmm. waaye Serigne Cheikh Mbacke Gaïndé Fatma dafa waxoon allahu taala su fekkente ne da man defal ñu gis hmm. soo xamee waxal ñu dégg man foofee laa teg sama mbir buur fukki at ak juróom-ñett ci ren jii maa ngi ñaan juddoo ci am ci diggal ndigalul ñaan am ko xam nu ñu décarté situation samp-samp boo xam si ne nit ku mën a doon ci àdduna foo mën a ne ci àdduna su ma xoolee sa mbir danaa ci wax loo xam si ne ba nga juddoo ba léegi mosoo koo gis seet moom bokk nga ci ñu ko dàq du ma ne maa ko dàq ñëpp parce que ilmul na jëm ngay seetee lu maanaam seetu biddiw ak bu rawaan laa lay booleen mhm. te ñaari seet yooyu bu nekk danaa la génneel ba génneel li ngay dund génneel la say sarax wax la say mbir na muy ak fan nga mën a jaar bu say man fi nga mën a jaar pour pour pour say mbir barke Serigne Touba su ma tëddoon nelaw sax man cee def man cee dindi mhm. loolu nag mooy garab yi nga xam ne si maa ngi koy jox nit ñi garab gi moom moo jaay moom moo jaay boppam nakk yi moom maanaam nakk yi moom maanaam demuñu ci kenn naa la nit ñi maanaam du mënuma ci liggéey lu nekkoon ci yow day deñ maanaam ni mu dañ sax moo garaaw ndax day dañ ngay gis day dañ ngay gis. Mm-hmm. noonu loo xam si ne day dañ nga naan nga naan ma ngay seey ak dama ko singuwaay. te nekkoo fi di ñàngal ak déedéet di ñàngal affaire yi nangam nangam déedéet ñàngal ñàngal ne seize mille yi ngay jël. cinquante deux mille ñett ñett une semaine la. koo gis ma yónnee la fi audio daa sant. waaw dëgg la su ma bu xam si ne doomu aadama da caa xarab it noonu laa la koy yónnee. Mm-hmm. Mm-hmm. man sax am na ko naan la yéen nga ma yónnee. waaw ak cant la ci moom ndax ma sëñoon waaw képp ku fi jaar wax xam-xam rek waaw doomu aadama waaw xam nga problème bi mooy buur mm-hmm. maanaam wa ma man la daa juru fen wallaay jarul te fen de di ah, yow la defal li nga man rek nit ñi moom da la si daan Mbàkke waxoon rek nee na aw fen ñett ñett ñett ñetti fan la mm-hmm. bis bi nga ko tàmbalee bis bi ko ñëpp xamee bis bi la ñëpp bàyyee waaye man li ma yor nag moom aw fen da cee ndax mm-hmm. lu ma man laay wax nit ki su def ko jotee danaa ko def bañ naa ko ba garab yii képp ku ko war a ma man la ma leen njëkk laaj jox ma numéro CP. ma jamono bii nii jamono bii nii benn defu ci am muy CP boo xam dafa maa rëcc te manque de communication mm-hmm. benn CP bu war a dem Allemagne te kooku damaa jàppoon ne moom dimanche lay dem damaa jàppoon ne altine lay dem mu dem dimanche. Mm-hmm. te kooku da ba mu ñëwee damaa ambalewaat ci bi bàyyiwaat bagage yi Dakar ci ki xam si ne moo koy livré bu ñëwee mu yóbbu ko. du ma yoreel kenn dara wax dëgg yàlla. Hmm. képp koo xam si ne it maanaam it maanaam it jóngoo ñu waxante ba pare saa boo ma woo téléphone man ngay jox. waaw man li ma jaaxal mooy amoo bëkk néeg amoo secrétaire soxlawu ma ko lu may de man man amoo bëkk néeg man maay sëriñ boo xam si ne maay jóge fii dem ba dem ba kër bu ngir yite jàmm. Hmm. maanaam xool nit ki mu wóor ma ne mbiram mënut a jege dakaar mënut a jege Mbour mënut a jege tuubaa fan laa mën a toog la may def gaaw ci moom ñu ne ma demal bu ma hmm. départ dem Kédougou man maa jóge fii dem ba Casamance ngir yitte nit te bu ma fa jóg dem maanaam bu ma àggee man maa jóg fii dem ba Gunjul ca xeer wa toog ngir ñaanal nit mm-hmm. loolu nag li may li ma yor man daf ma jaral xam-xam kenn du ko yàq ci man ma di ko fekke kenn du toog di xas ab sëriñ ak sëriñ te ma man ca dara fa su ma ko yéene dëgg la de defit lu ñu xas ab sëriñ barke borom Tuubaa rawal billaahi wallaahi wa lépp loo xam si ne wax naa la ko lu ma man la lu ma lépp loo xam si ne loo xam ne nee naa la mënuma ko mënuma ko mhm. waaye nag yàlla dimbal na ma gisam biteel bii fi mu toll nii waa jàngoog de kii kii moom barke borom tubaab moom maanaam mooy <laughs> maanaam kii moo daaneel gars yi kii mooy Vinicius Vinicius laa ko tuddee barke Serigne Touba booy boo kii Vinicius Junior billaahi <laughs> naanal kaas wiir rek trente minutes bala ngaa maanaam sa jàmbaar dana mel ne ak weñ ne weexul deful dara deful dara du la indil bopp bi mit du la indil dara. du la jamaaje comme yi. gars yi déedéet déedéet xoolal di kaasu biir rek ngay naan 30 minutes bala ngaa sëy barke borom Tuubaa da nga mujj ak soxna la xanaa lu lu xew. te da xoolal da maanaam da nga da nga da nga da nga yëg sa bopp dëgër goo xam ne maanaam kàkk lay def. la ilaha maanaam lii ma yor foyewuma ko. ah daaw. ndono la te fooyuma ko xoolal képp ku man doon ci àdduna boo ci jëmee boo man bañ naa ko ba ñi ma xam ñëpp xam na ne man al naqar da laa feese waaw yow day <laughs> waaw tey maanaam la ma lay wax moom mënoo koo di ndax dëgg rek laa lay wax mhm. képp koo xam si ne dañuy jëflante ak dëgg ci lañ jëflante képp koo xam si ne da am aw fen bay ba ma téye ko yow fen waaw fe buur fenuma kenn nag ngir am dara ci yow moom maanaam du du sëriñ ba ma yaakaar du mag du baay du nijaay li ma yor maa ko liggéeyal sama bopp ba am ko kenn joxuma ko. chaque jour nga ne ma képp ku ma yoral mbaa mu sa lekk na la woo. ba na woo na la may naa ko ci ndigal. na la woo buur wax ji wax ji jeex loolu de loolu de ci ko ñemee bariwul. waaw ndax la mbir mu mën ku ma jëflanteel. Mhm. bu fekkee lu la war a jox jox naa la. Mhm. bu fekkee lu ñu war a séq na ma ko war a defee defe naa ko ab sarax sax bala ma ko def dama koy filmer nit ki envoyé ko ko. tudd ci turam muy dégg. Mhm. ab sarax sarax la weexal weexal la. dëgg la loolu yàlla dogal na ko. sarax sarax la weexal weexal la bu mu di ak weexal la mën naa la cee yërëm sarax du ma ci yërëm nit. lii mooy yëf waaw ndax sama mbiri bopp la. man mm. damaa am ay rawaan yoo xam si ne samay maam lañ toppoon. Mm. topp samay baay ak sama yu bopp. Mm. muy ñetti catégorie rawaan yoo xam si ne benn bokk ci moom. te yooyu lu mu leen sant faaw ñu ne ma defal ma naa nga ma defal nangam. kon nag loolu duma ko yor mukk di ko sàggane. déedéet lii mooy yëfi buur. jërëjëf kokki waaw jërëjëf buur <laughs>